فسورة إبراهيم تبقيتا ذكرا إذا أبى للمولى علي وتفكرا متى دفنوني في تراب تحدثوا bisimilah alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu umma islam bi yëpp waaye ñu ngi nuyu suñ sëriñ Cheikh Ousmane Mbow ñu ngi lay ndokkeel bu baax di amaan mbégte bu baax jàkkaarloo yow ci say leeral di ñëw rek ngir nga defal ñu ay jàngat si ziar bi nga xam ne passé na mu nekk ziar le 17 set nga xam ne mooy xalifa yàlla bu nekk fii dakaar doon def ziar fii si parcelle digoon nga adduna bi yëpp ne di nga def jàngat ci ziar bi bu paasee gis nañ ni nga leen doon corriger si seen waajal ziar bi yàq-yàq yëpp doon nga leen corriger te macha allah def na effet bu baax nañ ko ci ziar bi léegi nag ñu ñëwaat ngir nga defal ñu ay jàngat parce que yaa ñu ko digoon nga defal ñu ay jàngat ci ziar bi ndax jaar na yoon wala ndax waxtaan yi tamit ni nga ko déggee. apprécier nga ku si mel ni Touba waxtaan na ak waxtaanu sang bi ki nga xam ne mooy yàlla njaay ñooñ ñëpp gis nañ seen waxtaan ñu ñëw rek ngir nga defal ñu ay leeral ndax d'accord nga ni ñu waxtaanee wa ilaa da leen koy bañal ak ku si mel ni Baye Mbaye MC gis nañ ko suñu sëriñ la macha allah gis nañ waxtaanam tamit bu fekkee ne am nga loo ñu si mën a baaxee rek incha allah ak naka nga gisee ziar bi yëpp ñu xaar say leeral di ko teewlu bu baax. te àdduna bi yëpp ñu ngi lay déglu ni ñi ñu ngi lay suivre bu baax gis nañ effet bi sa jàngat yi effet bi muy def gis nañ ko bu baax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla yàlla taxawu la wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay di sant yàlla di julli ci yonent bi di ndokkeel mboolem yi seetaan waaye di ziyaara cheikh Mahamadul Mahi Ibrahim Niass ak mbooleem njabootu cheikh Ibrahim di ziyaare imam bi te di ko ñaanal yàlla wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk jumaa ji di ziyaare it taalibe cheikh Ibrahim yëpp an madade cheikh Mawlana cheikhul xayri di ziyaare sama buntu di Mawlana Cheikhul Xayr mi nga xam ne tey li ñuy def buñ ko mënee yàlla nga ko jaarale ci moom te jaam bi santu yàlla fekk santut fi yàlla jaarale xiwalam ci moom ziyaara bi nag am na jàngat yu bari yu ci am macha allah seetaan nañ ko wala seetaan nañ li ci ëpp te ku war a defar lu nit ñi yàq faaw nag bala ngay defar nga xool lan lañ yàq ba pare boo jëlee ku mel ni mbokk moomu muy tuubaay nga xam ne li ñu jiital toujours ci jaam yàlla yi mooy ñu bëgg yàlla ñuñ nax nit nag li bëgg ci lañ koy nax nit nag bu xasee fës ci dara xañ na mën naa am dellu ci gannaaw du ko yomb. Euh, te jotaay yi nga xamee ne dañ ciy oote diina dafa am lu ci bàyyi waxoon loolu laa bëgg a njëkkee bàyyi def na fa inna baadal ijtimaahaati diiniya wa tariqa assiru fiha ilqaaxul muridina wa waqaa fiha adna suubin min nafsin aw hawan walam yusdar saaxibahu yuraddu ila alxaq afsada kasiran min siril ijtimaa لا سيما إذا صدر من نحو كبير مثلا ولو كان مثقال ذرة قد خولنا في الأسباب تسترا وأقزا بقسن من أقزان الحكمة قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا bàyyi mu ne lenn ci daje yi nga xamee ne pour diina diina moo tax ñu def ko ak tariq kon point bu njëkk bi ngay njëkk a bàyyi xel mooy lenn ci daje yi kon du daje yëpp muy benn maanaam du daje yëpp lañuy oote ci diina fekk diinaa tax ñu oote ko naka noonu mu ne am na mbóot mu ca nekk mbóot mu nekk ci daje daje boobu nga xam ne diinaa ñu oote ko ak tariqa mooy taalibe dañ ci dañ ci vacciné wu maanaam danañ ci amee cofeel danañ ci amee dëggu danañ ci amee gën a bëgg yàlla danañ ci amee gën a xam te nit ki noo gën a yokkoo ci diina rek vaccin la ci yow ci riiraange moo tax dajee oote mbooloo lu nit ñi war a respecté la ci diina mu ne nag bu fa nag lu gën a suufe ci sikk bu fa xewee jugee ci bakkan wala bànneexu bakkan moo xam nit wax fa lu foota wax wala nit jëf fa lu ñaaw daje warul jeex te defaruñ ko kurise wuñ ko sàrt bii la bàyyi teg ci wàllu daje yi conférence yi ñuy def ci faydu beeg gàmmu yëpp mu leer na lii ci bakkan la ne walam yusjar saahibahu te boromam jaajuñ ko ba pare delloo ko ci dëgg wuyu raddu ilal xaq mu ne su loolu amul afsara kasiran min siri ittima mu ne lu bëri day yàqu ci mbootu daje bi rawatina na mu jugee ci mag misaal exemple mu jugee ci mag waxuma mu jugee ci xale de waaye mu jugee ci kilifa ca daje ba donte lu am ni pepp peppu zara pepp peppu dugub exemple moo moom moom jum-jum boobu moo fa am dañ ko war a régler parce que lu tax mooy mbooloo mi li xew seen kanam am na koo xam ne xam na ne juum la am na koo xam ne xamu ko te li ëpp ci mbooloo mi mën nañoo ñàkk xam ne juum na ñu yóbbaale ko dégg nga rejeté wuñ ko mais dañ ko yóbbaale moo tax nag nit ñi balaa ñu dem li bokkut ci jotaay bi li yàq ci jotaay bi dañ ko resetal defar ko moo tax kilifa ci mbooloo am solo ay nit ñu responsable ci mbooloo am solo mu ne nag yàlla ci boppam fàggul nañu ay sabab fàggul nañu ay sabab yoo xam ne danañ ciy suturloo maanaam fexe ba defar rëcc-rëcc yooyu balaay jotaay bi jeex ci système bu rafet wa aqzan bi xusni mina axsaani hikma seet jël benn bànqaas ci bànqaas hikma yi defar loolu yàlla wax na ci alquran te mooy siru oote wa man axsanu qawlan ki gën a rafet wax mooy koo xam ne oo ni nit ñi ci yàlla te jëf-jëf ju baax ba pare ne ci julli ñi laa bokk beneen bi tamit ñi nga xamee dañu wax ne yàlla mooy suñ borom ñu jubal ñaari ay yooyu la ba indi layee ko lii mu wax boo seetee ay bu njëkk bi ki gën a rafet wax mooy ko oon jëm ci yàlla buñ tënkoo ci ay yi te ay bii may wax li jaas gis ci pays bi yëpp aay bii lañ fay teg aay bi li jaas yi nga gis ci pays bi yëpp aay bii lañ fay teg kon ki gën a rafet wax mooy ko oo nit ñi jëm ci yàlla kon képp koo xam da ngay oo nit ñi ne leen yaay yàlla yow sa lijaasa du wér léegi kii doon oote lu mu gëm muy benn te bàyyi lii la lii la indee daliloo siru jotaay mooy kii oo nit ñi dafay oo ñi pour ñu jëm ci yàlla kon kii oo nit bu dee dafa am pas-pas mooy yàlla oote bi moom wérul ñi muy oo it nga xam ne ñooy ay taalibeem organiser affaire suñ gëmee ne waa ji mooy yàlla loolu du tudd ziyaara ndax yàlla kenn du ko defa ziyaara kon loolu mooy njëkk li nit ñi war a seetlu ci ziyaara bi ku oote ziyaara dañuy seetlu luy sa pas-pas ndax ki ñuy ki ñuy ziyaara mat na ziyaara parce que ziyaara jullit ak mbokk jullit xam nañ ko mais ay mbooloo yu daje ne diw lañuy ñuy ziyaara benn màggal nañ ko yëkkati nañ ko teral nañ ko ndax léegi kooku màggal ko màggal yàlla la foofu tamit dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi kon dangay ngay oon jëmee ci yàlla da ngay jëf-jëf ci yiw ba pare ne man ci julli ñi laa bokk léegi ki oote woon gàmmu gi moom lu mu gëm kon foofu la baatu ziyaara bi yàqoo muy benn beneen bi ci boppam lii bàyyi wax ne warul xew ci jotaay bi xew ci jotaay bi te waa jotaay bi rectifié wuñ ko balaay jotaay bi di jeex loolu tamit nag manquement bu rëy la bu am ci ziyaara bi ñun nag bu ñuy jàngat mbir duñ ko jàngat ci public bi bëri na mbooloo mi uyu si bëri na ndax am mbooloo dafa am yu koy maye benn yàlla may la ko su la ko yàlla mayee nit ñi doo leen xëccee pexe doo leen téyee pexe benn tamit léeg-léeg nit am mbooloo fekk lim présenté nit ñi ba nit ñi uyu ko dëgg la waaye bu ñëwee la fi ne du dëgg am na koo xam ne am na mbooloo li présent dëgg lum mu leen téyee du dëgg am na koo xam ne am na mbooloo foogoon na ne li mu présente dëgg la dem na ba mu yàgg mu xam ne li mu présente dëgg su waa kooku pexee mooy tax pexe lay téye mbooloom pexe lay oote it te moment yi ñu nekk dañoo nekk moment yoo xam ne wa naasu laa yuhibuuna ilaa man ittabaa hawaahum bàyyi mu ne wala yonent bi nee na bàyyi indi na ci tafsir nit ñi duñ bëgg lu dul ku topp seen bànneexu bakkan li annahu nit ki nag su boobaa law saaxadawum fi xawaayim la ahabu soo leen dimbalee seen bëggeel ci li seen bànneexu bakkan rek ñu bëgg la ki doon oote jotaay bi tey ku ne xam ne ne jotaay bi am na surprise yu bari yu ci ne am na ñu fa ñëw ñoo xam ne démb daa jàppoon ne nawul ci dara ubbi na buntu neexalaate boo xam ne ci biir taalee bàyyi ci biir muqaddam mi ak sax ñoo xam ne sax bokkuñ sax ci fayru buntu neexalaate boo xam ne gëmu ko démb waaye tamit ci wàllu neexal ci wàllu alal mu ngi ci lu nekk parce que xam na ne léegi yoratul lum téye mbooloo mi kon léegi faaw pexe am ci wax yu rafet am tagg ay nit am seetloo nit baaxloo nit xam loo nit façon neexal bu nekk te doomu aadama dafa sentimental soo ko waxee ji ne mu ne sooy ku baax la te ki oote jotaay bi ku ne xam ku ko xam xam ne loolu moom mooy mbiram. su la nuyoo ku baax nga ku sell nga ko nangam dana la tagg tagg tagg tagg kon su ko defee loolu dafa nekk ci euh, euh, ki nga xam ne moo oote léegi nag pour ñu tënk jotaay bi euh, dañuy ñëw ci li nga xam ne moo wàcc ci jotaay bi ki njëkk wax mooy tuubaay ñu ngi koy ndokkeel bu baax waaye tamit ñu ngi koy yërëm it ndax fas ci lu baax fas si dëgg daa baax lool te arab bi dañuy wax ne fasaa an yor eh, fasaa te yoroo dëgg ñàkk fasaa yor dëgg moo ko gën ayu lisaani ma sirqin xayrun min fasaxatihi ma al boo jàngatee jëmmi jotaay bi day mel ni sëriñam dafa jëlee ci bàyyi direct ñett ñi muy wax ne ñooy sëriñam kenn fësu ci jotaay muy seexul xeyri muy Cerno Omar muy Cerno Alfa du ci dégg nga euh, baas yi ñu def def ci photo ak photo baay newu fa bu ñuy ubbi jotaay bi doo xam kuy sëriñu waa ji jotaay bi dana déroulé ba jeex sax li bàyyi ma si tudd sewul xayri moom moom du ko tudd sëriñam kat loolu nangu lu ko tuubaay def ko ci moom organise jotaay affaire yi defu ko ci mu ñëw si jotaay bi mu mel ni du sëriñam wala ay taalibeem ñëw si jotaay mu mel ni du sëriñam kon tàggan na leen ci loo xam ne moom amul taalibe googu maanaam ñoom am nañ taalibe loo xam ne moom amuk loolu nag danañ ñëw li ci bàyyi jàngale léegi nag dafay mel ne euh, jotaay bi dañuy ñëw pour samp baay fekk dañuy ñëw pour samp waa ji ndax lu tax dañuy jël waxu baay wax li ci waayam ji xelaat wala dañuy seet lu waayam ji xelaat moo xam xaatir lañ ko tuddee wala xelaat te xaatir ñeent la rek xaatir boo xam ne ci sa bakkan la bayee ko la wàccee ak boo xam ne ci sa seytaan la ko ab boo xam ne ci yàlla la bayee ab boo xam ne ci malaaka la bayee seeni seen waa ji dafay xaatir di wax ay dégg-déggam ñuy saxal loolu ci waxu baay kon su boobaa bu ñuy indi waxu baay day mel ni bàyyi lañuy ñuy samp mais buñ firee nag lañ def da ngay xam ne samp ñoon bàyyi seen waaji la ñuy samp te loolu boo seetee loolu moo feeñ ci waxtaan tuubaay bi ma joxe exemple pour ñu wane ne sampuñ bàyyi mooy tey bàyyi lim gëm ne asamaan ci asamaan bàyyi lim gëm ci asamaan mooy asamaan mësër la ci mësëru yére yenentu yàlla muhammad tasatara fil albaasi fal kawnu kullu masaayiru li haadal muqasas yenent bi bàyyi def nak yow sa mbóot mi ci bopam secret bi nga yor dafa neubu ci ay yére manam ci ay suura ci ay nit yaangi deg wax maama ibnu abdullah cheikh tiyan cheikh ibrahim cheikhul khay dafa neubu ci ay nit nit ñooñ nak seen jëmm yi yére mbot mi la mu ne waaye kaw bi yeb feñu way yére yi la xam nga lool leer na kon bàyyi lim am pass pass bi am ci kawnu bi moy kawnu feñu way yére yéntu yàlla muhammad ma sa makka la yaangi deg feeñu waayu beneen yërëm bi la feeñu waayu beneen yërëm bi la feeñu waayu beneen yërëm kon samp bàyyi mooy lan mooy nga wax lii la bàyyi wax lii la bàyyi gëm lii la bàyyi pas leer na léegi nag ñu bàyyi lu bàyyi gëm te pourtant doomi bàyyi yaa ngi toog surtout bàyyi yaa ngi toog moo tax ma ne waxtaan ci mbooloo dafay aju rek ci niveau ñi toog sa wet koo toll ak niveau mën na toog ci jotaay bi ku la raw niveau mën na toog jotaay bi koo raw niveau mën na toog jotaay bi loolu moo tax nañ ñun fi ñuy toog bu ñu seetaanee dañ xam gag-gag yi mu am waaye am na ku toog sant boo xam ne bu gaggee du ko xam parce que ñoo tolloo niveau wala benn moo ko raw niveau waaye am na ku toog sant naa moo ko raw mais maanaam ak doole gëmam mayit ko mu méttil ko wala bu paree mu wax lii wérul am na mën naa am am na koo xam ne ña toog ci tànt bi yëpp kenn amul niveau xam ne li muy wax wérul waaye ñu ngi njortu ne am nañu ko am kon loolu la bàyyi gëm ci kaw nu wax na ne alkawnu masara ulohiya kawnu bi feeñu waaye yàlla la kon kawnu bi du yàlla ay alabdu kawnu bi mooy jaam bi léegi nag kon sëriñam moom mu gëm ne kawnu mooy yàlla bàyyi gëm ne kawnu bi feeñu waaye yàlla la kon ndax loolu samp bàyyi la loolu dajji li bàyyi daajoon la waaye màbbu tabaxu Cheikh ndax tabaxu Cheikh dafa tënku si ñeent mbir imtisaale awamir dégg nga falee suuf tariqi fil aqwaali wal afaali minti sala awamir wacc naa bi na waaye lii lii mooy mbiru baay soo tabaxee lu uteeg li bàyyi wax rek yaa ngi dajji tabax bi te pourtant mu ngi koy dajjee ci kanam ay doomi baay mu ngi koy dajjee ci kanam ay sutu baay mais ne mu ngi foog ne mën naa nax nit ñi mën na nax nit ñi boppam lay nax loolu benn la léegi nag asamaan mu gëm ne maa xatuma ma dee loolu sëriñam moo ko gëm waaye bàyyi gëmu ko waaye bëgg na nag sukkandiku ci waxu Baye pour dëggal li sëriñam wax kon moom jotaay bi du pour samp Baye mais pour samp sëriñam la sama sëriñ nee na nangam Baye dëggal na ko fii léegi ma jël si ñaari bayt rek pour tënk jotaay bi bi si njëkk mooy dañ bëgg a wax ne asamaan mooy xatuma sëriñam loolu indi far ndeketu yu xaatar baye ko ci yàlla baye ci malaaka waaye ci bakkan la baye ko ak seetaane léegi na ñu bëgg ko wéralee ci waxu Baye mu def nag loo xam ne saaga na Baye Niass saaga na doomi Baye yëpp toogoon saaga na sëtu Baye saaga na muqaddam Baye yëpp taalee Baye yëpp saaga na leen keroog ndax dafa gëm loo xam ne Baye gëmu ko dafa gëm loo xam ne du di gëmu ko gëmu ko yàlla yàlla yàlla waxu ci alxuraan du amul lu koy dëggal daal mais bëgg na soppi waxu Baye ñas sosal Baye Niass pour wane ne Baye Niass dëggal na li sëriñam gëm jotaay bi yëpp lu rekk la léegi nag kon mu ne bàyyi na na rasulun sama dama bëgg taale bàyyi déglu bayti bi bàyyi ne bàyyi ba yontu bi di rañaani safaali waxti wal xabib safaali waxti safaali safaali waxti xattaabali ansi bi zikri Mustafa marhamal qalbi wa nafsi rasulun sama dégg nga bàyyi nga way rañaanu yonent bi na rasulun yonent bi sama kawe na ñu ne ko kawe nag ci kaw fan mu ne fawqa samaa yi ca kaw asamaan kon yaakaar naa ku dégg wax bi di nga xam ne bàyyi waxu ne yenent bi mooy asamaan yenent bi tiim na kaw asamaan sama kawe na fawqa samaa yi ca kaw asamaan mu ne ku tàppet lii ngay wax kon ku wax lii du Baay Ñas ah ku wax lii du Baay kon kan kan moo njëkk a tapé dafa saaga Baye Niass publiquement te man maa ngi toog sama néeg di ko méttilu te tant baa nga fees dell Baye nag daan na wax ne boo amee cër ci yàlla dëgg li rëy ci bëti nit ñi day tuuti ci yow li tuuti ci bëti nit ñi rëy ci yow maanaam ku am gis-gis a xol du jëmmi mbooloo mi dajee ak jëmmi nit ñi fa dajee la fay rot ngay xool ak kan moo oote mbooloo mi ak lan mooy seen pas-pas mooy borom basiire yi xad jaakum basairu min rabbikum fa man absara fa li nafsi wa man amiya fa alayha mu ne ku tàppee da nga naan yenent bi mooy asamaan kon lan moo tax muy indi bayt bi te bayt bi amul lu ciy wax ne yenent bi mooy asamaan benn benent bi tamit mooy yenent bi salaa salaam bayt yenent bi bàyyi wooyu mooy maaman ma ca màkk te maaman ma ca màkka loolu benn yére la ci yéreem yi bàyyi na fal kaw na kullu mazaayu albaas kon dafa oo nit ñi pour dëggal waxi sëriñam tegg waxu bàyyi ñu mel ni man buñ ñu fa toogoon dañuy xaj gàmmu gi ñibbi parce que dafa toroxal pays bi waaye dafa toroxal Baye Niass toroxal sax Baye ma em si parce que Baye ma em si baayam moo wax nga ne ku tàppee lii lay wax koo njëkk saaga léegi nag kat ñen ñooy ñi ñooy mooy ñen ñooy ñi tàppetut mooy sëriñam mooy moom mooy ñeneen ak ñeneen xool ngeen saaga boobu ñaata taalee bàyyi la saaga te saaga bi mu ko jëlee si sëriñam kon ki oote moo saaga ñëpp ki oote moo saaga ñëpp ñi ñëw ak ñi ñëwut ak ñi koy seetaan yëpp saaga na leen su fekkoon bàyyi yes daa wax loolu nga ragal wax leneen ñu ne da nga ndax baye waxam hujja la dajé nak jëmi xam-xam té lu wax da koy lay mais Baye Niass wax li yow sa sëriñ ñëw utee Baye Niass yow amo gàcce wane né sa sëriñ da utee Baye parce que da nga xép public bi nek sa kanam té pourtant amna ay jaamu yalla yu né si jotay ba mata tax nit ñi ba na dama leen xép dama leen di teuri dama leen jaay dama ëpp xel manam motax intellectuel dafa bax nga nek intellectuel ci yalla

yaa ngi dégg su ko defee boo xoolee ni ko organisé da ngay ne mbooloo ma adduna bi fa su ko defee ñee toog tribune bële kon loolu soo xoolee en matière de communication même boo amul mbooloo sax dana feeñ ne am na mbooloo parce que ni nga tegee jotaay renseigné aussi mu tegaloo da nga def ay copp-copp boo seetee kon ñett organise jotaay ba am na am nañ xam ci communication maa ngi leen koy nangul si ga si neex na waaye nag ku xam euh, seen gàmm daaw ak daaw jee ngeen xool seen gàmm da xam ne seen xaal yi dafa fay même sëriñ bi sax waxam ren xaal bi dafa fay te fay xaalam mu ngi toog ci ruqam toog di ko setaan yaa ngi dégg du man nag borom mbëdër bi la waaye nag lu ne yàlla mën na ko jaarale ci nit mm-hmm. même ba muy wax sa bàyyi moom man ci àddina ak àllaaxira nam ci daan existé ñorotu ci soo xamee nit soo mënee seetlu soo mënee jàngat comportement danga koy xam kon loolu bàyyi ma nga doon wax yontu ba ca màkk ba muy ni dégg nga rasulun sama fawqa samaay wa innahu luy mbir te mbir danaa fa tadalaa woo fi àddat xussi dem na ba ci àddat xussi kon yontu bi demut kaw asamaan rek comme ni ñu ko xamee parce que as sidratu muntaha mu nga ca kaw asamaan aras mu nga ca kaw kursi nangam dégg nga fu fi ne yontu mën na fa taxaw waaye bàyyi na loolu xeebu na sax wa innahu liy mbir tey mbir danaa fattadalaa woo fi àddatu xutsi kon su ko defee kon asamaani juróom-ñaar la biddaay ba nixaay yonent bi romb na foofu yëpp bañ waxee baatu samaa rek su fekkoon moom am na dégg-dégg ci yàlla dana xam ne bayt bi mën nañ ci génnee ne yonent mooy asamaan kawee na kaw asamaan kon kay mooy du asamaan bokk ci asamaan ma nga ca kaw asamaan seetlu ngeen wax bi ah kon loolu moo lay xamal ne kila raw rek moo la mën a corriger ki la gën a xam moo la mën a corriger loolu moo la koy xamal kon danaa fa tadaawoo fi àddi xusi loolu pour tënk la du ma ci yaatal même boo seelee ci rañaan bu séyri yu kay fa tarqa ruqiyakal anbiyaahu yaa samaawu maa taawala taa samaa nga xam ne foofu dafay léeb yenentu yi léebee leen asamaan jël asamaan su njëkk def ko yenentu yàlla Muhammad asamaan yi ci ron mu def leen yenentu yi wane ne asamaan yi ci roon géttantewuñoo ak asamaan su njëkk yaa ngi dégg kayfa tarqaa ruqiyakal anbiya yaa sama maata wala taa sama lami saawu ko fi olaaka waqat xaala sanan laka dunam wa sanaa foofu nag passé na dégg asamaan su juróom génn lépp ba dem na dégg wax bi de léegi nag kon su ko defee euh, bayti baay bi denga amul lu ciy junjune ne asamaan kon dafa oo nit ñi pour dëggal moom xalaatam imposé nit ñi gis-gisam ak dégg-déggam beneen bi tamit mu tuuma mu sosalaat Cheikh Tidiane ne Cheikhu Tidiane mooy suuf pour quoi mu wax loolu parce que sëriñam moo ne Cheikh Tidiane mooy suuf te temps balaa muy dem Maroc nee na àqatu Ahmadiyya mooy jiitu suuf waaye gis nga loolu dañ ko wax nii rek waaye suñ ko bàyyee dootuñ amati sëyru moo tax sëriñ bi da koy wax pare taalibe ñëw dëggalaat ko da koy weddi sëriñ taalibe dëggalaat ko parce que amatuñ lu ñu yor moo tax wax bi de lu ñu wax lang ci mbir gis naa ne ñu wekkiro amaa Aboubacar da nga xam ne dañuy lang parce que li nga leen wax ne wéyatuñ ko rek fi nee ne moo tax ñu ñu ne nañ ko forcer rek mais xam nga maanaam taalibe dañuy dem ba xam ne dañuy xam ne ban saaru nit nga maanaam nit kuy juum te doo nangu loolu gor ak ku am grandeur du du mel noonu manam yonent bi neena kullu bani adama khata wa xayrul xataayin attawaabin do maram bu nek da fay juum ñi gën ci ñi juum moy ñi nga xamne buñ bu nangu kon su ko defé lool moy eurel bi njëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala Cheikh Tidiane moy souf sëriñam moo ko wax luy dëggal na Cheikh Tidiane moy souf pour nga xamne ñom wër nañ dalil bay bëgg dé nak demuñ fenn mu ne Cheikh Tidiane da am ku ñëw ne ko nan nga mel ak waliyu yi Cheikh Tidiane ne ana kal ardi maa ngi mel ni suuf walla awliyaaw kal asjaar wëllu yi ñu ngi mel ni ay garab ci kaw suuf léegi maa ngi mel ni suuf mooy may suuf ana kal asjaar xarfu tasbix kaaf maa ngi mel ni diw est que loolu mooy tegte ne maay diw mu ne lii mooy dalil buy wane ne Cheikh Tidiane mooy suuf kon kon Touba moom dafa yëpp même seen waa xadara daf leen yëpp même taalibe yi ne ci gën a suuf daf leen yëpp parce que lu tax mooy bul ne ci mbooloo nit ñi jox la cër ngay lu la neex na nga teg ko ci bopp nit ñi wuy dem parce que bu ko jëlee dem fenn wax ko fa ñu gàggante ko kersa boobu ku ko jox yaa ko jox kon moom même dafa yëpp waa xadaram dafa yëpp seen section bi dafa yëpp xadara boobu Tidiane Sidqi dafa yëpp ñëpp dafa yëpp bàyyi may im si mu toog doomu bàyyi la kilifa la dafa yëpp Seydou Cissé nga xam ne imaam Cheikh moo ko moo ko fa yebal dafa yëpp muqaddam yi fa nekk mais mënoo yëpp ñoo ñoo xam ne ñii say doomu sëriñ lañ ñii say mag lañ ñii ay muqaddam lañ nga yeb leen yeb gi toog seen biir di leen tëwëri di leen nax moo tax lu mel noonu ñun duñ ko nangu lii nag lu ko sabab yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne diine ji génération bu ne maam siècle bu nekk dana am ñu yenu xam-xamu diine ji ñooñu ne dafa am màndarga ñu mel ñu ne ko ñan la mu ne ñu mooy gis nga nit dana am xam-xam te du day ne nit su amee xam-xam màndu soo waxee lu dëgg dafay jóg kaas ko donte xaritam nga mais gars yi jàng nañ dem nañ institut jàng jàng nañ téere mais xam nga problème bi lan la te nit boo mandu rek nekkatoo kilifa si diina parce que kilifa si gi ji nga yenu ku laal laal la mais dañuy gis kuñ ne kilifa la ci diina gi nit di la wax lu bokk ci diina ji mu toog ca néegam ruqam toog ci kilimam di nelaw kon kooku du kilifa kilifa diina du loolu kon dégg nga ku ni ñi topp ku nit ñi nangul bokk te kilifa diina kilifa diina yombul lii may def nii moom la kilifa diina def te Baye Niass du la daan def léegi ne kon su ko defee ñooñu nag seen melokaan mooy yenn fu naanu taxrifal xaali na ñi nga xam dañoo ëppal tuubaay li mu def jëfi ëppal la ak sëriñam al xaali maam dañuy soppi ñi nga xamne ñoo ëppal dégg nga ëppal moy nga def ba dem ba def nit yalla. ëppal moy nga dem ba def bàyyi ci yalla parce que dara yim dégg nga loolu ëppal wante halal mutilina ak ñi nga xamne dañuy sampu neen parce que boo ne yonent bi asamaan mu yàqatu maam neen nga samp koo gëm xërëm la gëm suuf mu yàqatu amadiya neen nga samp yaa ngi dégg wax bi de dégg nga kon su ko defee euh, ba pare ooteel nit maqaam moo xam ne newul newul maqaamam loolu samp neen la wala nga ooteel sa bopp maqaama loolu samp neen la wala nga dëggal nit ci maqaam moo xam du maqaam loolu samp neen la te dafa bëri ci pays bi wa tawilal jaahilin ak taawilu jaahil koo xam ne jaahil la ba pare mu ne aay bu mu tasaare addis bu mu ne moo koy taawil loolu moo feeñ yow jàngoo bayit bu ñu teg nga ne yaa koy taawil te taawil pour nga mën ko il faut nga mën a natt ci xam-xam waaye waa ji mënul natt kon su ko defee euh, dafa juum ci yenant bi dafa juum ci Seexu Tijaan te waxtaanu gàmmam gi yëpp yaa ngi dégg wax bi de ci lam bë lam bëgg a saxal rek mooy li sëriñam pas-pas yi sëriñam am mu nekk ay juum-juum yoo xam ne yu mag la dañ koy résumer am na yeneen yoo xam ne danañ ci ñëwaat incha allah bu ñu ci yàlla mayee temps ah beneen bi ci tegu mooy waxtaanu sëriñ bi nag waxtaanu sëriñ bi moom it am na ay yeneen heurel yu ci nekk bi ci njëkk mooy wax na ne bàyyi mooy xalimba gi yàlla bindee ah xanaa waxtu ne bàyyi mooy yàlla. Hmm? yàgg naa wax ne bàyyi yàlla de ah bi kan ziyati hmm? léegi bu fekkee bàyyi yàlla kay xanaa waru nekk xalima waaye nag lu tax mu taxaw ci détail yooyu mooy dañoo def ñoom seen plateau boobu wane ne moom mu wax ne xalima yàlla bindee bàyyi yaa ngi dégg xalimbaam gaa bàyyi yàlla ba muy amal alam bi yàlla ku baax la maanaam saw dafa wax ne sëriñam nee na bàyyi du xalima gi bàyyi mooy kii bindee xalima gi du loolu wax ma gàggante ko sëriñ bi ñëwaat tey na bàyyi mooy xalima ga seetlu ngeen wax bi seetlu ngeen ko léegi dangay jël li sa wax ak li ak wax nga comparé ko te pourtant sawa ci jotaay bi est-ce que na ko benn ñaar moo am gàggante yi ma leen gàggante tax na sëriñ bi dëppaat yaa ngi dégg te yàlla ba muy bindal aalam bi xalimbaam ngay bàyyi yàlla ba muy amal aalam bi xalimbaam ngay bàyyi bana aalam la loolu question la parce que ay awaali moom te aqlaam yi dañoo bëri muy benn waaye mu ne loolu lay utal dalil loolu kay ubiju wéy na ko du moom moo ko wax benn da koy jottali mu ne loolu lay utal dalil kooku kon tey mënu natt amul natteekaay wa sama rafa wa daal mizan amul natt dafa niveau niveau bi dafa balol dafa suufe mune luy dalel mune jaral qalamul ala jara dawna al qalamul ala qalima gu mag bi hukumin li hakimin ci atte bo xamné ne ñeel na aji atte gi num atte bi anil mualla rahmakullaale ji man may ki tim ñep man may ki tim ki tim ñep léegi nak toroxtaane ñeel na non bo xamné ajam la yaa ngi dégg ba pare nekk yéeféer bañ ma da ngay torox rek yàlla àtt na loolu ba pare kon d'abord bàyyi dafa wax ci hadiis ci bayti bi ne kon moom du mooy àtt ci bayti bi loolu la ci wax waaye ci bayti bi bàyyi waxu ci ne mooy xalimba gi dane juge bi téye na bigam tiim këyitam bind ne bàyyi ñas moo tiim est-ce que léegi yàlla xalimba gi mu bindee mbindee fi mooy bàyyi Niass est bayti bii moo mën a nekk dalil bi hmm? kon dangay gis na nit ku toog oote mbooloo lu war a mat trois quatre cent personnes cinq cent ba pare yow maîtrise wax ak mbooloo mi xam-xam nit ñi nag lu ñu wax diw liggéeykati bàyyi la am na mbooloo déedéet Baye sàkkutoon mbooloo xol yi defarul la soxla woon lay si liy soxlun ilaa fi islaahi qulubi asaabi Cheikh Tidiane nee na soxluma dara lu defar xoli taalib soo soo dajalee junnee nit te kenn ci ñoom xolam defarul du liggéeyal bàyyi de loolu na ko nit ñi xam kon l'essentiel bi ci la nit ñi doxut mooy ndax xol yaa ngi defaru ci taalib bàyyi seen xol yi ndax mu ngi defaru da ngay gis tey vidéo bi bu bu duggee nga xam ne bu ci nekk dama dut baaraam ne fii dafi juum fii dafi juum da nga am ñoo xam ne ay taalib bàyyi yu commentaire te duñ d'accord ci lu tax may may jubante kii waa ñooñu ci ban diina lañ ne gëm nañ yenentu jëriñu leen dara gëm nañ Cheikh tian jëriñu leen dara gëm nañ Cheikh Ibrahim jëriñu te bàyyi neen ñun dañuy dox and ak dëgg dañuy windeelu and ak dëgg fu dëgg windeelu légui mo wax mu leer ko ne lima wax yëpp dëgg la mu ciy mer moom kon xol bi dafa ruur ah ta ta te boo demee ci commentaire commentaire da nga fekk ñi seen xol yi defarut te lool dafa bari kon moo tax te bàyyi mu ne kon bàyyi lim soxla woon mooy xol yi defaru tey ñu bëri ñu ne dañ koy représenté mënuñoo defar xol te loolu dafa bari ci pays bi kon ñun fi ni ñi di xoolee du foofu la ñuy xooloo moo tax boo defee pexe ba dajale mbooloo mu bëri ba foo ne yaa ca ne dafa am ñoo xam ne bu ñu ko gisee dañuy tiit xam nga senegal dafa nekk dëkk wala Afrique laa wax wala sa addina bi jamono ji ñuy toll gis ngeen nit daal booy oote dara bu bu mbooloo mi uyusee rek kon dëgg la parce que bu du doon dëgg mbooloo mi du uyusu loolu foo koy diina wax ah Mbaye Gueye Youssou Ndour kay ànd bu yàgg la ñoo wax ne dëgg la mais est-ce que dëgg la parce que li ñuy def lan la li ñuy def la ñuy natt du seen ànd bi la ñuy natt dañuy boo ko bëggee vérifier ñoom ñaar ñoom li ñu wax seen ànd bu yàgg bi ci lan la ñu ànd yaa ngi dégg ak lan la ñuy def loolu ngay natt boo bëggee xam ndax li ñuy wax ànd bu yàgg bi dëgg la Iblis yàgg na waaye dëgg Iblis moo ëpp mbooloo yàlla ci nit ñi daa àddina bu dee 7 milliards 6 milliards yëpp Iblis lañ topp léegi nag faydu bi dañoo nekk benn am benn kaw kaw benn xeetu kaw kaw bu nekk ci biir faydu bi maanaam nit bu ko nit ñi toppee rek kon dëgg la wëliyu la am na cër bàyyi bi muy oote fii am na ñeneen ñuñ topp ñeneen bëri mbooloo lool ah? kon mbir yi duñ ko attee ci diw am na mbooloo ah iwu yu amutoon hmm misri bëriwul mbooloo léegi xoolal moom bilaam bilam bilan wu ñëpp ñu bëri woon tarbi tarbiya ak ñun jox wéritiya nga xool maanaam sëriñ duñ ko xamee ci bëri mbooloo mandar mandargaay xalifa yàlla rek la mandar mandarga bi moy xeet yëpp ay ñëw te boo seetee fi oote ñëpp amu kenn koo xam ne xeet yi topp nañ la te ku si nga joxe nga sa yaa ngi màgget yaa ngi waaj dee tax ba léegi xeet yi ñëwaguñ kon loolu màndarga rek ci mësërul xaq bu oote xeet yëpp dañ koy wis mbaal gi jàpp benn qualité jën borom mënta mbaal fardu jaameo bi dooma sidi barxaam kon su ko defee mu ngi noonu nga gis kon yëpp taale bàyyi bëri na foofu taalibe bi def na ko après sëriñam jël ne kaay ma naxati leen kaay ma wax lu leen ne pour moom bu wax ne yàlla ba muy am xale ba gi mu bindee alam bi bàyyi la taalibe yi ñu kontaan xam ko oote gàmm au lieu nga waxtaan xam-xam di seet lu nit ñi bëgg rek naa wax lu neex nit ñi guddi gi jeex ñu bi est ce que bàyyi bu wootaan gàmm nii laa doon gàmmee samp Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane a fi ne kese du baay loolu ngeen fi dégg ah loolu ngeen dégg ci kese bàyyi mais kon da ngay gis ne jotaay sax jotaay sunnaay pii bi sax jotaay li ci ëpp daal soppeeku dajee rek ne da ngay samp Baay Ñas te yow mënoo sax samp Baay boo mënoon samp Baay sax génne xam-xam génne addis génne ay taxaw jàkkaarloo àddina bi wax leen kan mooy Baay wax leen ne ñi koy def wujji duñu wujjeem loolu sax mu tane mais samp Baay boo xam ne yow da ngay sosal Baay yëkkati sa bopp looy bàkkoo maa wax lu kenn ñemewuta wax problème bi du loolu li nga wax est-ce que buñ ko peesee dina dëppoom déet moom na daa dégg ñooy xalifa yàlla dañu dégg-dégg bu bees moo tax mu indi ay dégg-dégg di jóor li nga indi dara baaxu ci loolu loolu la rek de rek la foofu lay boo xamante moo tax lu waaye teg bayti waaye teg coota maa yaa sax mu leen ci dégg-dégg parce que comprendre luy loolu am na ay alxuraan yoo xam ne bàyyi da koy romb rek jàll du ci laal dara day firi baat rek jàll ndax aaya bu nekk lañu war a indi dégg-dégg am na aaya yoo xam ne leer na ba pare minu aayatun muxumaatun umul umul kitaab am na aaya yoo xam ne booy firi arab bi rek xam li mu wax am na aaya yoo xam ne dafa lënt am na aaya yoo xam ne dafa leer am na yoo xam ne leeru mais sa waaye moom bu dëkkee bu dëkkee min Hong Kong li Bangkok sax mu bëgg koo def Hong Kong xam nañu xam nañ ko Bangkok ñu xam nañ ko mu bëgg def ay nit parce que daa dégg na xalifa yàlla dégg-dégg bu bees moo tax mu ngi booxante ci waaye waaye booxantewul ci gàddaay booxantewul ci rafet <laughs> waaye ma ngay booxante moom ci dégg-dégg moom mu ngi ciy booxante ah waaw loolu lu xalaat rek wax su ko defee loolu du mbir mi bàyyi jawaay saa boo ko soppee lu mu wax ba pare day indi aaya dëggal wala addis dëggal wala waxu Cheikh Tidiane dëggal boo xoolee waxee Cheikh Tidiane nga al la mu wax da ngay xam ne la mu wax mu ngi ci biir aaya bi kon loolu muy benn problème bu njëkk boo xam ne dégg nga bu joxoon cër bàyyi may im si jox seer Seydou wax dëgg feel du wax waaye xam nga tamit beneen problème dafa am ci pays bi mooy da ngay wax lu rëy ci bàyyi doon ñu am ñu kontaan donte day uteeg waxu bàyyi am na ñu fa yegg tey kon ñooñu fan lañ kontaanee ña nga kontaanee ca bakkan ña nga kontaanee ca bànneexu bakkan loolu tamit am na ci pays bi boo ne bàyyi man ñëpp àddina ak àllaaxira xam nañ ne yonent bi yonent mooy sang bàyyi de waaye comme comme comme moom seen sëriñ nga wax muy bàyyi dégg nga takkaat bu yonentoo Seex Tijaan génnoon ci bàyyi nga xam dara du fa des ah te bàyyi moom li ngay gis ci téere mooy yonentu lépp lu ma am maa ngi ko amee ci yonentu nga bëgg a man loo bàyyi ñes ci kaw yonentu bi gars yi di la déglu bàyyi la ci parce que gars yi ca bakkan lañ lay dégloo dégluwuñ la ci xol dégluwuñ la ci xam-xam ñun nag dañ ko dégloo ci xam-xam moo tax ñu néew lool ci ñiy déglu dañ ñii dañ lay dégloo ci parparloo ñun nag parparloo wuñ diina amul parto asabiya dafa araam ci diina te dafa am ñoo xam ne tey faydu bi par parloo la ñuy dox dangay am sa mbër mu bëreeg diw diw daan ko nga ne nga ne nga daan amul par parloo la ah dem ba def kat appi ñu toog ci kawam nga ne daan amul par parloo la taalibe day am muqaddama mu wax lu du dëgg nit gàggante ko nga mer par parloo am mais fekkoon dëgg ngay dund kon doo ci mer Cheikh Tidiane nee na jullit mooy ku bëgg dëgg bëgg ñëw dëgg bëgg ñu taxaw dëgg bokk ci ñu koy xeex bañ neen bañ ñooñ neen bañ ñu taxawal neen bokk ci ñuy xeex neen loolu mooy jullit kon ku nekk na seet sa bopp ku nekk na seet sa bopp sa niveau fan la toll est-ce que jullit nga parce que yow ki nga am na new ci dëgg neen la nekk moom lay samp moom lay taxawal te yow yaa ngi bokk ca yaa ngi bokk ci loolu yaa ngi koy sampale yaa ngi koy taxawale am na koo xam nag moom bokku ca waaye mu ngi koy fréquenté mu ngi koy yëkkati mu ngi xaritoog moom bu ootee mu ñëw kon bëri na lu fi jaxasoo ci pays bi de bëri na lu fi jaxasoo loo xam ne bu ñu ko leeralee ñu bëri dañu xam ne ñoom te bàyyi dafa ne assaaki anil haqqi al mutakallim bil baatil bàyyi mu ne ku gis dëgg waxu ci yaa ngi ni kuy wax neen yaa kuy wax neen bi ne am kon wax ji am na ñum ci bokkal ñu bëri sax loolu mooy bu tënk rek pour bañ a jël temps bi ku bëgg a leeral moom faaw nga détaillé ko bëgg a lëndëmal nag man nga résumé wax loo xam ne day ubbeeku ñëpp te dara wéru ci beneen bi ci te ku mooy muy bayti boo xam ne ah, ñetteew ci jotaay gis nga ba mu ko wax maa ngi xool Ibrahima bi tey dama ko yërëm Ibrahima bi tey Cheikh Ibrahima bi tey parce que waa jaa ngi yàq bayti bi yàqin wu metti woo xam ne te foog na ne moom mu ngi ko defar defar goo xam ne mooy les écraka yaaru ni ixtisaasu moo det yi xam nga li zikra ak moom wa ragal dëgg-dëgg moom xam naa ne war nañ ko ko firi laat xam ko ko njëkk a firi waaye mere naa ko comme waa ji mënu firi ka ko njëkk a firi rek moo koy lor bayti baa nga tàmbalee safa waxtu azal abdi azkuruhu nasa li rabbi shukrun li rabbi shukran fa huwa nee na safa na waxtu azal abdi waxtu jaam bii di bàyyi azkuruhu nasa maa ngi koy maa ngi tudd lii may wax maa ngi koy yaxal maa ngi sant sama borom moom mi nga xamee ne dafa dénkaane sant kon Baye xam na lim doon mooy jaam la mu ngi sant boromam bi ko dénkaane sant lu tax nag walim laa wa mamduux annabi muhammad ki may tagg nga xam ne mooy yenentu bi salaay salama bi am daa ci tagg gi ma koy tagg ci ay tagam yan fi oyo biya ca lay dàqee samay sik samay ayib wa saa ak samay wàññeeku wàññeeku léegi nag mu ne uxsinu uxassinu chiaran wéy yii may wéy yenant bi ndax yenant bi mooy géer bàyyi mooy géewelam wéy yii ma koy wéy nag mu ne ko uxassinu chiaran fii ma dikka saydi damay rafetal wéy yi ci tag gi ma ne tagg yow sama sang yow yenant bi léegi nag waaye nag wa arqusu xam nga di wéy ba pare boo la ko fecci loolu daa neex ci zaahir hmm? daa ànd baa indi fi na xam-xam yu rafet moom Baay Ñas gis nga fii la Baay di jàngale fecc bi dagan ak fecc bi aram fii la ko Baay di isaara mu ne wa arqusu doon naa fecc de law anni law anni fatan yuxsinu rasa bu ma bu ma nekkoon ndaw boo xam ne damaa mën a fecc wala damaa mën a fecc fecc bu rafet danaa la feccal danaa wéy boo la ko fecc ndax wéyu moom zaayir la fecc yi zaayir day ànd ak feccu zaayir man naa ànd wéykat yi dañuy fecc mu ne bu ma mënoon fecc danaa fecc waaye lu tax bàyyi mënu fecc lu tax bàyyi mënu fecc fecc bu rafet parce que fecc bàyyi wax ne ci kaset ne dafa aram bind na ci téere bi tafsir bi na dafa aram te bàyyi yàlla daa protesté ba kanam def lu aram wéy nag moom yonent bi nee na dagan na de kon su fekkoon ne fecc dagan na da koy man parce que tabian bi yàlla bindee Baye Niass dafa mat sëkk lu diina santaane yàlla dag ko bindee da koy man dégg nga wax bi ne te it maayra ñoom maayra Fall si daal si ñooñu buñ fecc daganoon danañ fecc bay bëgg a moo tax Baye Niass bëgg la jàngal fecc biir ak feccum biti bàyyi def ne bu ma gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu dëgg suuf si yonent bi dëgg ay tànkam danaa fecc ma diirug jamono te du ma yokkat xam nga ni yokkat dem ba mu yàgg ma sonn bàyyi mënatuma bàyyi dem ba gis yonent bi fi mu dëgg tànkam te feccut fecc na kay parce que waaye feccim biir la fecc feccim biir moomu nag du mës a jeex du yokkat mooy kontaan bég ci biir fecc naa fi ma toog sa maa ngi fecc te yaram bi yëngatuwul ku ne xam na ne fecc na ku kontaan rek moo koy def ku mer du fecc hmm? ku kontaan rek mooy fecc mais ku mer du fecc bàyyi nag radiyallahu anhu ba mu gisee ban demee màkk mu bi demee màkk ba mu demee màkk ba nu muy génne àddina mu ngi fecc ci biiram léegi nag fecc googu nag ndax yaram bee koy def déedéet yaram bi di ko def ruuxu koy def léegi nag mu ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi koy wax ne ko fecc bu rafetoon ci sariyaatu danaa ko def waaye nag fecc rafetut yaa ngi dégg moo tax mënuma ko parce que wasaana ilahi nafsi dahra la ura amidu ila ma lay sari jaayisa yàlla protéger sama bakkan bi ba dooma gis ma def loo xam ne jaaduwul sariya bu fekkee fecc nee na dafa xaraam ndax léegi bàyyi jaadu na ci moom mu def lu xaraam kon moo tax man ta man fecc dégg nga wax bi de léegi nag kon nag mu ne kon wax na yonent bi ne ko lii su su mënoon nekk dinaa la ko defal mais mënul nekk parce que dafa araam waaye li mën a nekk maa la koy defal lu mën a nekk mooy di la wëy di rafetal wëy beneen bi ci tegu mu teg ca soog a ñëw na ci li zikraak kon waa ji moom xaw ma ku ko cuqatin li zikraak yaa ngi dëtt xamul fa wax ji départ xamul fa wax ji jeexee moom daal la zikraak lañ ko jox rek mu koy dóor fu mu toll léegi nag lan moo tax nag yéen taaree bàyyi sëriñ bi di wax li zikraak li zikraak dafa am lu mu ci ràbb loo xam ne mooy bëgg-bëggam ma waxal leen ko tey maanaam fa ruuxi googu seexul xayr la ci jublu pour nit ñi xam ko jismu gi Cheikh la si Seexu Tijaan la si jublu mooy Cerno Omar dégg nga wax bi ne taayirun nag mu jublu Cerno Alpha léegi sakk na xasaa mu jublu si boppam lii moo tax na mu yeb bayt bi léeg-léeg bu ñëwee nag si ñoo xam ne fii da leen war a neexal du laal yooyu parce que wax na gars yi ne leen nañ jar affaire bi kon moom faaw mu ñëwee bu ñëwee mu njar affaire bi su ko defee bu ko waxee gars yi taalee bàyyi dañu kon kontaan fekk lañ gëmul moom moom la ci samp te du ko leeral daleen di nax moo tax ngaan daan dégg ca gannaawam bu daan waxtaan di mbëlee bi xalifa yàlla buy mbëlee làmmiñ ah. xalifa yàlla ah, xalifa yàlla <laughs> maanaam léegi su ko defee am ñum déggoo am ñoo xam ne déggoo na ak ñoom ci affaire bi mbëlee gaa yi nga xam ne dégg ko léegi nag ñu ñëw ci firi bayti bi lu tax ma ne Ibrahima bi te dafa rus parce que bayti bi euh, bi ko bàyyi di woy dafa indi taa'irun moom nag pour moom taa'iraani mu ngi naan day gàgganti bàyyi bàyyi dafa warutoon wax taa'irun taa'iraani la yow jàngoo arab mënoo wéy mënoo firi bayti bi nga ne da ngay gàgganti bàyyi xam nga ne lii yablu na ah taa'iraani mu ngi naan Ibrahima ju Ibrahima bi tey taa'iraani la bàyyi waroon wax léegi yow kon yaa ngi yaa ngi wane ne bàyyi lii mu wax du nii te bàyyi mooy mooy moom mooy xalimba gi <laughs> feneen nga ne mooy yor xalimba xam nga affaire bi moo tax yal nañu yàlla dimbale moo tax ku ma xool gis ni ma sonnee te te amoo basira da ngay fane ci yaxal laa nekk fekk liggéey bi ma nekk ci fayda moo gën a métti liggéey ndax kuy màbb taxaw ma ñëw ne ko doo ko màbbee te gaa yaa ngi noosee bi siri ma xafa laa yoo hëddu te jëluñ sémmiñ jëluñ jaase taxaw ci kanam tabax bi ne kenn du ko fi màbbee te man ma jël jaase jël samay matériel taxaw ci kanam tabax bi ne kenn du màbbu bu baay bi ñu xool koo xam ne mu ngi màbbu tabax bi ñu ne ko yaa gën a bëgg bàyyi ki lay wax ne doo fi màbbu ana xel ana gis-gis ana intellectuel bi ngay ot ana vision yi nga wax ne moom nga am luy sa vision ana ana say objectif ci bàyyi lan la kon objectif bu bàyyi ci taalibe yi du mooy ku ko jox xaalis ba ku joxe xaalis rek ñu ne yaay yaay yaay affaire bi wala ku ku mën a organiser mbooloo mu bëri ñi ñuy gis ne ñii ay taalee bàyyi daaw organise fi mbooloo ne def ku ko mayoon digal mu takk jabar yu bëri gars yi ébaadu yi wax ci lu nekk Baye Niass sabab la pour ñu xas Baye kon loolu dégg nga benn xas buñ xas Baye sax jarul oote mbooloo benn xas ci ko xam kan mooy Cheikh Ibrahim léegi nag déglu leen ma firi leen bayte firi ko ko tamit beneen yoon lizzikraaka bàyyi mu ne lizzikraaka fàttaliku gi may fàttaliku fàttaliku gi ma lay fàttaliku yow yenent bi kon wax bi yëpp mu ngi ci diggante Baye Niass ak kenn mu yenent bi waa xoolal ba waa ji day xaaj jëmi bàyyi jël ruuxu ga def ko keneen est que kii moo jox bàyyi wàcc waayam bàyyi bu fekkee dafa am ruuxu am yaram am xol dégg wax bi de nga jël bàyyi jël gi def ko keneen kon bàyyi manqué na matut jël xol bi def ko keneen dee nga jël dee nga yaram bi def ko keneen te nga naan yaa aj baay foo baay ajut te yow am nga siruru gis mu xal bu nga ne bàyyi du ko am loolu feebar la kon bayt bi yëpp ñaar ñaar rekk ci ne mooy yenent bi bàyyi tagg ak bàyyi mu koy tagg bayt bi ñoom ñaar ñii la concerné waaye xoolal dugal na ci seexul xayri xam nga man nag taalibu seexul xayri laa waaye du fuñ ko dugal ma ne foofu ma nga fa de su ma ko defee rek par par par par loolaa loolu na leer nañ yaa ngi dégg bayti bi diggante bàyyi la ak yenentu ruuxu gi ruuxu bàyyi la jëmm ji jëmm ak bàyyi la mbëggeel gi mbëggeelu bàyyi la mu des nag lii muy def yëpp kan moo tax mu koy def mu ne yenentu bi yaa ngi dégg ban yenentu yenentu ba ca màkk annabi muhammad ولم والملا وممدوه النبي محمد كن لول دفور لير كن باين لي ذكرى كفاتل جمال فاتلكو يا اروني داف ماي غار داف ماي غاري سي فاتلكو بي دا فام لوما سي دالاي ني نيكو لولا سي دالاي موني اختزاز مو دا سام بجيل دا فاي ييغاتو دي جيخيكو بغيل فوم في القلب comme dafa tuddoon fecc ci gannaaw moo tax bayti bi dafay firi bayti bële xam nga booy fàttaliku nit sa mbëggeel li ci dangay ko da ngay am sawarte ba moytu sa jëmu yëngu te wax na ca gannaaw ne doon naa fecc fekkoon na fecci mën naa ko rafet na ci rafet na ci nit yàlla ñu ne ko bàyyi mu ne waa sama mbëggeel gi moom mu ngi jéqew sama xol bi ñu ne ko waa léegi ruuxu gi nag mu ne fa ruuxi sama ruux gi ruux gan mu ne sama ruux gi bi gis mii ci sama jëmm ji déglu de ruux gi ne ci sama biir jëmm ji muy ruuxu bàññees bi taa mu ngi naaw taa irun mu ngi naaw ci biir jëmm ji loolu nag nu mu ko mëne a mu misaale ruux gi pitax misaalee jëmm ji kaaf mu ne sakkana dal na alxaf saa kaaf gi kaaf gi mooy jëmm ji dal na waaye ruuxu gaa ngi tëbëkki dal ci biir kaaf gi ci biir jëmm ji kon su fekkoon dégg nga dafa junj leneen man nga wax taayiraani ñaar ñaar yan la bàyyi wax ñooy naaw ci biir jëmm ji benn ruux la wax waxu fekkoon ruuxaani taayirun bi gis mi ñu ne nga ne ah, kon nag kon du du du taayirun taayiraani la man xaw ma koo arab sax xam naa ci diggante bi dégg nga mu ngi la arab fekkoon dafa sama ñaari fa fa ruuxaa fa dégg nga ñaari ruux yi ruuxaan ñaari ruux ñu ngi na bi gis mii ta mii taayirun nga ne déedéet parce que ñaare ruux bu ñuy naaw doo doo wax da nga naan taayiraani bu dee ruux yu bëri nga ne taayiruna waaye bàyyi def ne fa ruux yi maanaam fa faagi sabab ak cofeel gi yëngatu sama xol moo may yóbbee nag fa ruux sama jëmm ji taa iru mu ngi naaw bi gis mii ci sama biir ji ji xam nga ne lii arab bu leer la kon est-ce que waa ji dégg na arab maa ngi gis muy xool Ibrahima gi tey ma yërëm Ibrahima gi tey xam nga jàngkat booy yàq ci kanamam day feebar te xam naa ne du ko mën a gaaganti ci mbooloo mi te jaamu yàlla bu baax la maa ngi koy xool yërëm ko mu ngi koy xool nag mel ni ku toj làmb ji nag te jëndul bii sax. dugg na ci lamb yu xaw da si way jënut bee mom sama ruu gi nek sama jëm mu ngi naw waye sakana dalna yaangi deg al qafsa kaf gi kon lan lay misal kon mom déggul misal, misal bàyyi pitax man bu nekk ci bir kaf di tebeuntu kaf gi moom danaan tek do gis kaf yi di tëbantu waaye pitax mi ngay gis muy tebeuntu ci bir kaf gi fecc gi nak mo dagan sufyank te mën def ba de ken dou la yedd te do yokkat kon fecc bii moo dagan ci biir tasawuf bu bàyyi waxee fecc fecc bi la ci jublu waaye fecc ak yaram kooku daganut te bu bu ko bàyyi mébétee mébét lu aram voilà bu ko bàyyi mébétee ku manqué mooy wax su ma gisee nangam danaa fecci fekk fecc zaay la ci am dafa nisar lu bon ku nisar lu bon lu lu lu diine ji wax boo nisaree lu bon boo ko def léegi yow soo ne bàyyi fecc zaay bii la ci jublu kon waneel ne bàyyi daa manqué ba pare ñu soogoo lal waxtaan parce que fecc momu baye nee dafa haram kon manuko mébét kon da ngay weddi wasana ilaayi nafsi ah kon suko defé baye tek ci ne waxat jaa ani yow min ahmad annani wa madhi maqbulun talaqaytuhu nasa baye mu ne sama bés tay bi yunus sallallahu alayhi wasallam ñëw ñewna ci man jahratan nema ling may tag tag gi may tag nanguna ko baye mu ne dama ak mom nasan yax mo xamako kon su ko defee loolu jaru fecc di tagg yonent bi yonent bi feeñu la jaxratan ne la kontaan naa ci yow bu la ko bàyyi defoon nooy def ah waaye lu ko teree fecc parce que dafa xam ne kontaan du tax nga def lu araam moo tax yi di wax dañuy yëngul bàyyi ndax bàyyi ñu bàyyi ñu xamal yàlla mato kontaan ke du tax nga def lu araam te nit ku mat boo koy defal boo koy teral da nga koy teralee lu mu bëgg waaye bëgguma kaanee nga toggal ma téeméeri kaane loolu mooy damay sant baay di yow man bëgguma kaane yow nga toogal ma téeméeri kaane ndax danga maa bëgg su ma si ñamee benn tim moom bu ma dee yaa ma rey kon booy booy sant baay da ngay seet lu lu araam lu dagan nga sante ko baay lu araam nga teye ku ne kon fecci ci Baay Ñas mooy fecc ak ruux te boobu dagan na yonent bi kontaan na ci may ko yàlla may ba dee saaba yi tamit fecc nañ fecc boobu yaa ngi dégg képp kuy jullit kon fecc nga fecc boobu te fecc boobu dagan na ndax feccum biir la kon su ko defee mbokk yi euh, dañ doon tënk rek ci bayti bi pour wane ne gàmmu gi moom sikar neex na ñu ngi ndokkee sikarkat ya wéy tamit neex na ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay wala kulaalin euh, beneen bi ñuy tëjee mooy ziyaara boo seetloo ziyaara dafa am ci lislaam ñaar nit ku jóg ne day ziyaara ji nit loolu moo semee sax ci buntu ziyaara foofu bàyyi indi na ko fa ak ziyaara sa sëriñ bàyyi indi ko fa ziyaaratu arbaabi tuqaa yaakaar naa soo sa jàng na ko fa waaye nag ki ñuy ziyaaral moom bokk ci arbaabu tuqaa mooy ziyaara ñi ragal yàlla ki ñuy ziyaara moom nee na mooy yàlla kon est-ce que bayti bi war nañ ko jàng ci ci xadara ba xam nga maanaam ustaas yi man dama xamul dañuy nax seen bopp xaw ma dañoo yeggut ci yenn niveau di xalaat wala seen jàng mi lu mu leen di waaye fàtte naa ne jàng ak dégg du benn Sénégal nag ku jàng topp ñëpp dañu jàpp ne dëgg na parce que dañu jàpp ne ku jàng du réer te réer ajuw ci jàng ajuw ci ci ñàkk jàng loolu tamit ñu bàyyi ko xel te lii bayti bi saw firi na ko fa firi na ko ci seen palaato bi ñoom yeneen bayti yi kayfa bi rajo yakunu maa seyqi fi baladin waahid firi nañ ko fa naka la taalibe toogee sëriñam ci benn dëkk caam taxta saraas firi na ko ñoom ci am ñoom ñëpp firi nañ ko ñoom Touba yi firi nañ ko mais problème mooy ki nga xamee ne nag bayt yi dañ koy jàngale ci sëriñ ab jaamub yàlla mais yéen yii dangeen ko indi ci kudut jaamub yàlla ku jàppee boppam yàlla kon est-ce que yabu leen tamit taalibe yi est yabuñ tamit ñoom seen taalibe man li ma gën a yërëm mooy ñi jàngut saadara ba laa yërëm parce que ñoom dañ joxe addiya te duñ ci am dara duñ ci am appartement jabar du leen ci yombee te ñoom la ñuy exploité bul sonn nag ñoom gaay yooyu duñ duñ gaaw a ba sëriñ ba xam nga lu tax duñ gaaw a ba parce que lu tax mooy bëri na kuy inkaar fi tasawuf dañ laa financé te ñoom dañ leen di financé saadara ba kon ñooy ñoom ñooy mujjee dem bul sonn booy xaar yow dem pour ñooyu doo dem te ñoom seen intérêt la ñuy défendre moo tax ku ci wax rek yaa ngi rappi rappi dégg kon loolu tamit ñu bàyyi xel màggal damay dégg ibaad di wax ne waruñoo màggal ku du yàgg dañuy juum waxaa bi dañ koy wax juum addis bi ci la ziyaara ñëw ci la gàmmu ñëw ci la yu bëri ñëw te addis la boo xam ne ñoom kenn mënu ko ci wéeti ci ñoom yonent bi sallallahu dafa wax ne am na ñoo xam ne màggal leen ci màggal yàlla bokk am na ñoo xam ne màggal leen ci màggal yàlla na bokk kon ndekee màggal du yàlla rek lañ koy def te lii hadis la bu wér bi boo xam ne hadis bu wér boo xam ne dama ko bëgg a jàng ñépp dégg ko ba pare mu firi su ko defee nag dañ xool ba xam yenentu war nañ ko màggaloo wala déet dégg nga man su may génnee gàmmu hadis yi bokk na ci li may génnee gàmmu inna min ijlaalillah hadis bi albaani dégg nga soloon na ko saxiix la mu ngi saxiix abu abu daawuda hadis bu wér la inna min ijlaalillaahi ikraama zi sheybatil muslimi bokk na ci màggal yàlla teral ko julit boo xam dafa béy jaaw maanaam mag mu béy jaaw tey julit nga màggal ko teral ko màggal yàlla la bokk kon ndeke màggal yàlla du yàlla ngay màggal direct rek muy màggal yàlla waaye mën ngaa màggal nit mu bokk ci màggal yàlla léegi nag kon man nga ma wax ne suñu waa ji dafa bi jaaw ma ne waaye comme moom mooy yàlla moom bi jaaw ci lislaam am déet comme nee mooy yàlla yonent bi ku du jullit lay wax kon day génn waxaamilil quraan xayril xaali fihi fii jaafi anhu ak koo xam dafa yenu alquran yaa ngi dégg ëppalu ca waaye wàññiwut soo soo duggee foofu dañuy gis ne waruñ ko màggal ndax moom daa ëppal ci alquran alquran waxul ne yonent bi yàlla la moom mu ne yonent bi yàlla la alquran waxul Cheikh Tidiane yàlla la mu ne Cheikh Tidiane yàlla la alquran waxul Baay yàlla la mu ne yàlla la alquran waxul ne nit yàlla la mu ne nit yàlla la alquran waxu ne asamaan suuf moo fi jiitu yàlla moo ne asamaan suuf moo fi jiitu yàlla dem na ba wax sa yàlla dafa juum ci aaya alquran bii te loolu danaa leen ko wan kon nag kii daa ëppal ci dina ji waaye tamit kii yonent mu ne kii màggal ko du màggal yàlla kon bëri na ñu fi ziyaara tey ci pays bi ak ci diine ji matuñoo ziyaara leen du ziyaara yëkkati leen su fii nag taaree booy sukkal sëriñ da ngay xool ndax moom wàññi na ci diine ji wala ëppal na ci teggin ni ngay jàng non nga war a am sa sëriñ bu dee sëriñ dafa wàññi ci diine boo ko defalee yàlla du ko nangu de kon fii la ñuy joxee ab kalifa di ko sukkal di ko raamal di ko bësal tànkal boo ko defalee defal ko yàlla mooy koo xam ne dafa yenu alquran ëpp lu ci yeesu ci loolu tamit ngeen xam kon taale bu nekk booy màggal sa sëriñ xoolal ndax moom daa ëppal wala mu yeesal su ko defee rek bés yi ngay bés sànk yi baaxul addiyee bi ngay joxe baaxul suy dugg si otom nga tijjul ko baaxul teggin yi jàngale yëpp yow ki nga koy defal lan mooy pas-pasam est-ce que pas-pasam dafa utee alquran wala déet képp ku gëm ne mbir mi ci àddina bii la nekk bés penc ci amul ku dee da ngay ñëwaat ku la ku la jox teggiin ku la màggal yaa ngi dégg màggalul yàlla ku la jaf sëriñ dafa sëriñ dafa amu amu cër yàlla te loolu moo fees dala ci pay bi parce que alquran dafa saxal àllaaxira ci beneen monde moom mu ne àllaaxira amul lépp fii la te loolu bëri na ci pay bi loolu sax te ñu ngi ci àllaaxira te loolu mu ngi ci pays bi kon moom ziyaara ko du ziyaara du ziyaara bu bu ñeel yàlla loolu tamit na ko ñëpp xam beneen bi mooy ak teral wa ikraama si sultaanin muqsit buur boo xam ne dafa maandu nga màggal ko it ci màgga yàlla bokk teral ko ci teral yàlla bokk teral nag moo waral nga jox nit ki ñaari loxo teral moo wax nga sukkal nit teral moo waral nga ubbi ni buntu oto teral moo ne nit comme yow nga koy bësal teral moo ne nit comme yow mu toog ci kaw te suuf loolu yëpp teral la waaye nag moom day fekk koo xam ne Bude bur, day nek bur bo Bude ne mandu la bu borom xam-xam day nek borom xam-xam bo xam dafa yenu alquran dégg nga wax bi de ëpp lu ci yesu ci ku yenu alquran nak nit ñi xamé sa mandarga moy buñ bëggee tek ci diina ji lu ci bokku da ngay taxaw combattre ko kon so sété hadis bi bëri na ñuy di len jox ñaari loxo di len jox ay milliards joxuñ ko yalla jëmu ci yalla lool na su ko kon waruñ ko ziyaara naturellement parce que pas sam dafa yaq ci diina dafa jappé nenit nit su génnee nag publiquement ne man gëmatuma loolu danañ xool fan lañ koy teg dafa jàpp ne yàlla Dakar la dëkk sant Njaay dëkk Cambérène te loo amu ci alxuraan amu ci addis su ko génnee na taxaw publiquement ne la ma waxoon yëpp maa ci dëñ souvent ma xool ban place la am ci alxuraan ak addis kon ñu ngi sant yàlla di tënk jotaay bi xanaa di mujjee rek li nga xamee ne moom la euh, moom la wax moom waa ji ci ki nga xam ne mooy suñu sëriñ di doomu suñu doomu sëriñ muy Baye Maim si di ku baax waxoon na fi dégg nga wax ju kawe ci moom dégg nga wax jooju nag gis naa mu ngi koy lay moom sëriñ ba parce dafa am koo xam ne gisu ci boppam ndax ñoo joxoñ benn mu xadam ne moo da xinmal bàyyi gis naa mu ngi koy jéem a lay parce moom nit la koo xam kuy wax ci moom soo waxee ci moom soo ko nëbbee sax dana ko jéem a yëkkati moo tax gis nga jaase indaan na loolu ci kanam mu muqaddam yëpp yaaram nag du bëgg lool waaye moom ku koy tagg rek lay wër ak nu ko mën a amee bàyyi mee MC nag surtout baay la ku baax la te nit ku tamit suufeel boppam la te it maanaam bëriwul du incarné lu mu gëmul bàyyi mee MC day taxaw publiquement ne daan dama doon baali dama doon nangam dama doon nangam mais kooku jàmbaar moo koy defee hmm? an pare boo ko ëppee xam-xam mooy ne yaa ma ëpp dafay nangul man dama gis loo xam ne ci sëñ maamu laa ko daan gis yaa ngi dégg daf lay nangul bu la xamee du la fàtte bu ngeen dajee daf lay tudd boo ko defalee teraange yi da koy wax xeebu dara yaa ngi dégg kon su ko defalee teraanga mu waxal ko loolu loolu du problème bu joxone milliard Baye ma MC Baye ma MC ko ya dak liggéeyal Baye du su loolu la naté nattee liggéeyal Baye waaye tamit nak sañ taxaw ne ko li ma defal ken defal ma ko mom moom sañ na ko waa maa bi ni'mat rabbika fa haddis waye ndax mom bu ko waxé loolu la sëñ ma maaye reconnaître khalifa bi yaa ngi dégg wax bi ne loolu la Baye bi ni ci téré yi kula defal nangam soné ko ya dak liggéeyal Baye na gëm ne mo dak liggéeyal Baye kon dama jaxone wax ji buntam ñaax la rek pour nit ñi dimbale njabootu baay ci ñuy def ci pays bi man loolu laa jàngatee wax ji moo tax man aw ma ci problème beneen bi tamit ku mënta joxe it àggagoo ci niveau bi pour mën a joxe góorgóorlu leen nga wut ut bu sell boo amee nga def li waa ji def rek ndax lu ñu mën a def ci pays bi njëriñ lay nekk rek bu dee day dundal dëkk ba rek amul problème kon su ko defee man loolu amu ci problème léegi nag mu des nag kañ la ko waa ji jox téeméeri junne bi mu ootee 30 ans ci faydu bi yaa ngi dégg comme nee na oote na 30 ans ci faydu bi te Baye May ñees nee na Baye May MC nee na bi ñu mënanteeg yàggul matu sa 2 ans 3 ans 4 ans mm-hmm. kon liggéey na lu war a mat 26 ans mm-hmm. amul lu mu jox Baye May MC kon yow mi toll nag ci raameen raameen rek mm-hmm. yaa ngi dégg wax de boo màggee boo amee xaalis di nga mën a jox Baye May MC kon mbir mi problème bi du foofu problème bi mooy li nga am def ko li yàlla may keneen bu ko xeeñ man. waa ji lépp lu ko yàlla may nangul naa ko bu dee am sikarkat am na sikarkat moom ma ko ëppale nangul naa ko damay apprécier ay sikarkatam lu man problème ci bopam moy nit do bañ leppam de nga problème bi ci bopam nak moy est-ce que sikarkatam katami sen sikar si foofu dina jëriñ parce que kat de nga sikar jaamu yalla la te jaamu yalla and ko sa moromi andukok agi moo Ya a nag ànd ak yalla yaa ngi nga wax bi ne jaamu yalla mom dang koy def de and ak sa moromi ngeen andi jaamu yalla waye ku jappé bopam yalla bëgg laa gëmloo ne sikkar kan yalla nga xam nga kan mom du yalla man fofu rek mais jëmmi sikkar ci wax mu neex way bu neex mokal bayti dama ko apprécier té dama leen di ñaanal yalla té duma leen añané dara parce que dara yoy yeb reuy sama bëtt bu mako amé bu mako amu reuy sama bëtt yaangi dégg wax bi de té likoy mayé ku koy mayé mu ngi fi xamna mom bu fekkon mo yalla mom essay dem naa àlaxir bi yàgg mom mom bu fekkon mo yalla ci nit ñi lañu xamé ci man lañu xamé ku ne yóbbu na ma àllaaxira bu yàgg yàgg na ma bàyyi noppil noppil noppil waaye mënu ci dara parce que du yàlla kon taalibe nañ ci xamee ne bu doon yàlla éliminé ma yàgg na ma def na lu ne ci pexe ci wàllu gàllaaj yàlla nanguwut parce que du yàlla moom yàlla du def gàllaaj yàlla du yónni ay taalibe neen dem leen sëriñ nangam ngeen fay ko nangam pour diw nopp wala diw dee wala nangam kon ñoom ba ñuy dem lañu war a xam ne yow doo yàlla kon mbir yi gën naa yaatu niñ ko foog wala kullaalin euh, ñoom buñ tàyyiwut ci yàq di daaneel li bàyyi samp Cheikh Tidiane yonent bi ak yàlla cheikhul xeyri man duma tàyyi beneen mujj bi may tëjee mooy jàngat bu ma def boo xam ne dama ko dañ koy jàngat ñu ñëpp ñu bokk ko jàngat ko ci moom lettre bi ma nga sa jowaay rosaay bàyyi di wax ne maa ngi dénk magi muqaddam yi ku bëgg ku yërëm kam bëgg ku ko sopp waaye tamit ku koy laaj biir ci yàlla ak yàlla dégg nga mooy ñu taxaw ñoom ñëpp ñoom muqaddam yëpp ñu taxaw ala saaqil ji di ci peeru dëggu fi irsaadil ixwaan ci jubal taalibe yi wa mun fi diine te laay biir leen ci diina wax ma laay biir leen pour seen mbiri bopp de laay biir leen ci diina wa tariq ak tariixa bi daa iman toujours nag bu mu nekk benn temps toujours dégg nga waaye nag liñ leen di laay biir ci diina ji ak tariixa bi nañ ko njëkkee ñoom seen bopp nañ ko def seen bopp mu ne waxiye loolu loolu mooy lan tàmbale ko seen bopp mooy lan waxiye an laa yamuru bi shay'in ila baada an yasbaqu ilayhi buñ digal taalibe yi dara lu jiitu nañ leen ci léegi nag ma taxaw foofu rek tey moom bu ootee ziyaarat mu xadama yëpp dañ ñëw ak seen taalibe yi te pourtant bu seewul xëyri ootee moom du dem yóbbu taalibe mi kon lu mu leen digal ak mu ngi ci benn point boobu rek laay joxe gum bu Touba organiser programme dana def fotum def affiche ne diw mooy sëriñam moom est-ce que bu defee programme dina ko def kon lam lay digal ta newu de la ngeen koy dajaleel di ko jox ci xaalis est-ce que moom mën na ko jox sëriñam moom jox ku koy tagg moo ko gënal loolu donte ne gis naa ko fan yi mu ne day buuxante ci joxe parce que xam na ne léegi lam doon sañ-sañ ba mu amoon daanu na mooy maay affaire bi xamne ne il faut mu neexal taalibi Cheikhul khair yi bu yagu rek ñëw na réunion ta lool mosuñ ko am ci mom kon su ko defé mu ne buñ wala yasjaru an shay'in ila ba'd an yes an yen anhu manam buñ aye talibé dara lu gannaaw bi nga aye seen bop bu dé xinma xinma leen yooyu xinma yow it dégg nga lo leen di digal la yow def ko yow ak sa sëriñ mais dangay gis ne lam leen coono yim talibé mi daj ci mom mom dañu ko ci sëriñam bu Boubacar bu jotee ñaari kàrkaal lay duy sept personnes huit personnes bàyyi lu war a mat junnee di dakaar sax te bu ñëwee ci bag bi dana fekk mu xada yoo xam ne moo leen ëpp mbooloo ak ñii ñum toll ak mbooloo ñu du ay duy ay biis kon la mu leen leen coono yi muy daj ci siyaaram daju ko ci siyaara sëriñam te coono yi ñoom tuubaay daj ci siyaaram moom daju ko ci mbiru Cheikh kon naxaate mu ngi foofu naxaate mu ngi foofu gàmmu gi tàmbal ne ba ba muy jeex jël lu ma 2 minutes 3 minutes wax ci cheikhul khair ñom bu ñi présenté diw mu xadam seex la ñew diw mu xadam seex la ñew cheikh moy kan cheikh moy serigne borom jotaay bi est-ce que ni lañ ko wara tuddé ci jotaay bi mu xadamam ñëw na mel cheikh seex xaritu borom jotaay bi la bàyyi may ku baax tuddu ko wax ci mom li may ku baax la bu ñàkk kañaan te pourtant yaa ronu ci borom tante boo xam ne ba muy ñëw ci cheikh ay taalim yëpp ko bàyyi cheikh na ko jiiju ba bi muy ñëw ci bàyyi ñes taalim yëpp ko bàyyi bàyyi na ko da nga am mbooloo mu ëpp loolu cheikh na yow da nga am mbooloo mu ëpp loolu mu dem ba am ko santu cheikh mu ñàkk alalam ji cheikh ne da nga am loo ëpp mu dem ba am ko santu cheikh bi rafet fu nga wane sa sëriñ ngay wane sa bopp ku fàttalu la fal ko bàyyi mu ne walaa walaa yettakaasalu bu muqaddam yi buñ tayal su boobaa nag buñ tayalee euh, dana réeree ci ñoom mbooloo mu bëri faydu bi nag tey muqaddam yi dañ tayal tayal wax ci xam-xam te boo buggee gindi nit ñi da wax ci xam-xam da ngay jàng waaye ku nekk yaa ngi sa kurus moo tax boo boo dem xeex lañ gën a man ci saaga ci wax xam-xam <laughs> dégg nga loolu lu ko waral mooy la bàyyi de waxoon lañ defut buñ tayal léegi nag kon su ko defee فلا شيء أضر بالعامة من زلات الأكبا من اللي جنا المنا لور بوبل بي موي بونكالي ترقيس دانو تم مغني فينا نيو سي بري دانيو ترقيس تي باس باس تي قام قام تي لب كو دافي طالبي دانيو ترقيس نيومي دانو يانو يالا بال اك يين تيت ماغي واخ مقدمي نكو بوم دوك جوك واي بي دوخ ديغنت ديغنت طالبي اك خطوه بي سين خطوه كينن دي اومال موي خليفه يالا بوم كو دوك yaa ngi dégg na jëmbat mbëggeelu taalibe yi ci xalifa yàlla bi waaye bu mu ko dog di wan boppam taalibe te loolu bëri na fi torop te danañ ci ñëw bàyyi ko wax lii mu ngi si jooy resaay lii may wax nii mu suñ ko defee fa yanqatimu bi zalika al mëdët anhum mu ne su boobaa mëdët bi taalibe amoon day dagg waan at baayam day dag si ñoom dagg seen taalibe yi moo tax ngi gis taalibe na man diw mu xadami sewul xëy laa waaye taalibe amuñ benn mbëggeel ci seex seex jaralu leen dara parce que wanoo leen seex sa bopp nga leen wan boy dem ci Cheikh ñaari nit ngay andal te boy dem gàmm na bàyyi duy ñett bis parce que bo demee buñ dajé yow lañu wër bëggo ñu gis Cheikh do leen ci ñaax te lool bari na ci fayda bëri amoon na si jamono bay mu ne ne bu ngeen ko defé seen tëbb yeen day dag yeen muqaddami ba paré seen tëbbu talimi dag te yene ko sabab kon ala kulli alim buñ tënkati ko ci lool da ngay gis ne kon li bay di ay yep mom ma nga ca ci digënté mo Cheikh kon nak su ko loolu tamit ma def ko bàyyi ko muy jàngat message bu ma laas taalee bàyyi ñu xool jàngatam nan lay doxee ak sëriñam ñu xool ko rek ku nekk def jàngat ndax ni ni nga ni mu la wax ne moom war a moom la bàyyi waxee taalibe noonu la war a defal sëriñ moom def na ko sëriñam sewul xëyri te bàyyi def na bala ngay digal taalibe bi yow na ko ci nga si jiitu mu xaddam yu bari tamit duñ digal li duñ duñ jàng lettre bi parce que lettre bi soo ko jàngee coono yi taalibe yi daj <laughs> da ko war a daj moo tax lettre bii nii gaa yi nga denc mel ni ab jamaa ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi wa aq daxwaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu